wàllu jikko yu rafet ak teggin yi gën a rafet ci lislaam fi la tàmbalee bismillaahi ci tudd turu yàlla lay tàmbalee samay wax arrahmaani yàlla ki aji xéewle xéewal yu yi arrahiimi yàlla ki aji xéewle xéewal sew yi sëñ bi daa tàmbalee ci bismillaahi arrahmaani arrahiim ndax yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daa waxan ne seen mbir yi am solo dee leen ko tàmbalee bismillahi rahmaani rahim ba dee leen ko tàmbalee turu yàlla daal wax sax mbir mu ñu tàmbaleewu turu yàlla barke ba day manqué mbaa sax du am barke tàmbalee turu yàlla kon dañ koo fonk lool lépp loo xam ne moom ngay tàmbali te du ak mooy rek نغا تابلي بسم الله الرحمن الرحيم وبوك تي تري الله يماغي نغا كوفري يالا مي خيولي خيولي ديجي تي خيولي خيولي سوي دا خيولي امنا تي ديجي امنا تي سيو باتاي الرحمن نيكو سيغ بي اوب فري موم داي ديلو الرحمن تي يرمان دي ادلا جيغا خاملي نيب لاكو يالا ماتالي سي ni koy wedde kay moy sax dinen ci xewal ba xëy na ñu ëppee ci ci zahir ñay gëm ko topp arrahim nag mu féetale ko ci primi yërmaane alaxira ja yàlla jagleel ña gëmoon rek nga xam ne ña weddi woon moom ca bokk wasalla yal na doli tedd nga sunu sang muhammadin muhammad wa ala alihi ak ci wa sahbihi ak ay saxaabaam wasallama te mu dool leen woolu tasliman dolli woolu man nga ne ba tey wasallama te mu musal leen tasliman ak musal da cee teg julli ci yonante bi ne yàlla na yàlla dolli teraanga ak jàmm sunu sang sunu kilifa di muhammad dolli ko itam mbokkam ya ko gëmoon ak saxaabaam ya saxaaba yi nag mooy mboole ñi nga xam ne gisal nañ ko tiggam ko rek te faatu ci gëm ga rek ñoo ñëpp nañ ci saxaaba yi ñoom ñëpp yàlla na yàlla dolli leen teraanga ak jàmm ba faaw faaw xasbuna doy nanu allahu yàlla wa ni'ama te baax na wala wa ni'ama te amul moroom alwakiilu yàlla mënu wakiilu ñun day doyloo yàlla te yàlla ku doy rek ku ko wëkk say biir wékk nga ku doy sëkk innamal amaalu naka jëf ya bin niyaati nekk nañ ci yéene te inna ma li kulli mri'in naka ñal na sopp sopp mooy ñal na képp nit rek maana waa la ya, mu yéene nee na jëf day moom mi ngi ci yene ya, rek bu yene ji selle jëf ji lool fa yalla waaye bu yene ji rafetu rek bu toll nenn fa yalla xam ne jëf na naa tuuti nii ci zahir te yene ji tax ko re lool waaye jëf mën naa rëy nii te yene ji ñak soñu ji tax koo tuuti lool fa yalla kenn ku nekk lu nga yéene ya, rek ngay am wa fi xikam nekk na ci xikam yi de ci xikam yi mooy wax yi am njariñ ne man talaba ku sàkku al amana mbëf wajada te mu farlu ca wajada mu am ko nee boo dee wut mbir te farlu ca bu baax a baax rek yàlla mën naa def nga am ko wa man xaraxa ku fëgg albaabu bunt ba wala ja te mu nooru ca fëgg nga wala ja mu tàbbi moom lee sorewul ci bunt ba fëgg rek ci bañ a bàyyi yàlla mën naa def bunt ubbiku loolu lépp li muy tekk rek mooy da xam lan mooy bu baax tam jaral lu ne nga di ko wut rek taxaw temm rek ba yàlla may la ko wa fiiha nekk na ci xikam ya muy wax yi am njëriñ man am sakka ku téye boppam xanil fudooli wa is caaxaan xam da kon ñumaaleef ko min arbaabi xuqooli ku sa bopp sori caaxaan moom ku wàññi ña yeewu boole kon ku koy sori doo ko jege ku wàññi ñi yeewu boole la ca wa fiiha nekk na ci xikam yi wax yi am njëriñ man laa yusxitu koo xam ne du merloo nafsahu bakkanam laa yurdi du gërëmloo rabbahu borom mu ne nee nañu koo xam ne kat sa bakkan la ko neex ca nga koy topp doo nangu mukk lu ko naqari kon doo merloo sa bakkan mu ko xamal ne kon a am gërëmal yàlla jël ci lu may rek luy merloo yàlla wa fiihaa nekk na ci xikam yi man faxala ku def man faxala ku def macha la ko neex laq yo mu taseek macha la ko naqari nee nañu kuy def la ko neex rek te du seet ba xam lii la a def am déet faaw muy taseeg lu ko naqari saa yu du ca man dara faaw fu mu toll taseeg loo naqari te du ko mën a faj ba fi yaa nekk na ci xikam ya man laa sama ku taqoog mujaahadata nafsi yi jihaaran bakkanam faasa kon mu texe xinda xolooli rab si ci wàccu bàmmeelam ba ne nee nañu ku taqoo jihaar ja moom ak dundub toll rek la war a toll ndax ta bàyyi ba keroog muy faatu waaye nag bu bu faatoo rek ba wàcc ci paxum bàmmeel rek foofay noppaloo faaw faaw nag incha allah wa fiiha nekk ci xikam yi man taabaxa ku topp ar yàlla ndax su borom ne ne man yottaxi rasul faqad ataaxallah kon ku topp yonante dañ ñu fajul aajo wa qaala wax na jaamihu haadihi xikami aji boole yi lay xikam baytan aw bayit waaxid nu mu di wenn fii haadal maanaa ci bi maanaa waxoo moom moo di wa kullu man képp koo xam ne saama woor na xanir radaa in walis caay-caay ya fa innahu naka moom yuftiru dana doge bil fadaili ci ngëneel ya sëriñ bi dalee man mi doon boole wax yu am njariñ yi am na bayit yoo xam ne maa ko wax te mënees na koo boole ci wax yu am njariñ yii mooy dama ne woon képp koo xam ne bàyyi nga caay-caay yi te koo tudde nag woor ci caay-caay yi waaye woor ci caay-caay rek mooy bàyyi caay-caay yi kon nee na ku woor ci yi bàyyi caay-caay yi daal yàlla jox la ngëneel yi nga doge ca muy sa ndogu xam nga ko koo tudde koor moo tax mu tudd ndogu daa bëgg wax ne ku sori yu bon yi rek yàlla daal lay takkaayale ngëneel ya nga xam nga xam ne kon da sangu ba set ci mboolem yu bon yi yàlla door laa takkaayale ngëneel yi ak daraja ya kon ku sori caay caay yi yàlla jox la rek mooy takk-takk bi mubaarakul ibtidaay li lu mu barkeelu tàmbali la may moo nit intihaay tey barkeelu mat nee na mi ci yaakaar yàlla def ko spectacle bu am barke te sax ba mat lépp di barke wala xoo ñeel na ko moom sëriñ bi ay doon ba tey ziida yàlla na dooleef ko fay ak bopp wala nga ne doole ko may wala baawaanu may baytun aw bayit aaxaru waneen fii haadal maanaa ci bili maanaa yàlla ji mu way maanaa xawlu cheikh yi waxi sëriñam ba rabbi yàlla na doolee gërëm allahu yàlla taala kawe na xan walis ko boo xoo dawlatul baatili nguurug neen saaxatul wenn waxtu la wa dawlatul xaq nguurug dëgg ila saaxat jëm na bis penc bi ko sëñ bi wooyee nag mu ne alxaq dëgg ga day saabitun aji sax la wa amal baatilu daal caaxaan wa in xalaat doonte kawe na fa zaaxiqun aji naax saay lay doon wa saafilun te aji suufee sëriñ bi ne ba tey am na weneen bayit boo xam ne man mi doon boole wax yu am njariñ yi maa ko wax tayit man na dugg ci wax yu am njariñ yi cosaanal wax ja nag du saa wax waxi saa sëriña ya. xëy bu nee saa sëriña ya, da cee jublu cheikh abdul khadir al Jilani ndax moom daa fekkan waajuram ak njaboot gi bokk ñu jàpp ci wërdul lol wax ne ne moom sax teel na koo jàpp lool lool waaye nag ci dogalub yàlla yàlla ko jaarale ci jaar jaarukaay yu bare bare ndax bëgg boole ci moom ngëneel yépp ndax gannaaw wirdu xaajir yoroon na itam wirdu tiijaan ak wirdu azadili waaye nee na ba ci tukki géej sunu boroom subhanahu wa taala dafa yebal jibril alayhi salaam mu ñëw fàtteeloo ko moom sëriñ bi lépp lu jële ci nit naa ba mu kooku fàtteloo ba mu fàtte ko mu dellu joxaat ko ko nag jox gu yees ba tey itam nag mboolem ñi nga xam ne ñoom la njëkk na jox wirdu yooyu muy Cheikh Abdul Qadir ak Cheikh Ahmed Tidiane ak Cheikh Abul Hasan Achadili ñoom ñëpp kenn ku ne ñëw joxaat ko sa wirdu yi jox gu yees bëgg nga téyel ko ko wóotu ko ci nga xam ne kon ndénkaan la lu nekk ca loxoom mu yore leen ba faw faw ba ni mu ñu bisee ci géej gi nag ko